jaajëf já gars yi maa ngi bëggee gars yëpp di bëggee di si xaar bi nga xam ne moo fi jaaroon keroog Rokoseen Retour Music Fass Mbaaw maa ngi koy bëggee bu wér wér na nga ngi noonu tey beneen liggéey si ñëw na fi mais laata loolu damay wax gars yi ñu ne ñu xam lan moom rab audit rab audit boo ko déggee dañuy xool saytu niveau MC bi nga xam ne teew na fi boo xoolee da lay jox trois bits wala deux bits pour nga rey ko ñu waxtaan a yow xool sa niveau intellectuel xool sa niveau tamit si rab loolu daf si am solo pour lan ñuy def loolu pour ñu xàmmee kan mooy P kan mooy deux kan mooy trois ak ñu nekk naare ci MC si rab bi parce que rab bi instant yi daanaka xaw na feebar benn côté mais nag tey benn real nigga benn MC bu high level moo fi ñëw benn MC bu doog benn MC boo xam ne beneen niveau la te loolu di ngeen ko défi découvrir seen bopp su ma fenee may naa leen ngeen wax lu leen neex Flos Noodles maa lay béggee béggee waaye yeah what's up Veuzus maa ngi lay bëggee. di di suivre émission bi rapo di. yeah so it's your boy Flooz Lou Dubs. aka Mr Boom Bap. yeah jóge ba Ziguinchor di représente Casamance Ziguinchor. Casamance yeah. Uh, Flooz Lou Dubs tur bi Flooz Lou Dubs mooy lan. yow so Flooz en fait euh, boo déggee Flooz. anglais la jargon la boo xamante ne waxu waxu kàddu mbedd la quoi. ok donc flouze mi ngi mi ngi mi ngi wundu euh, xaalis so boo déggee ma jël turu flouze bi it's just um yi importance bu ñu jox xaalis tey jii nii ak fu ñu koy lebal lu mu leen jaral. ok ak jëmm bu mu am tey jii nii man loolu laa bëgg représenter ci biir hip hop bi. ci biir Galsen carrément est-ce que donc loolu la bi di wund quoi donc Loodups bi en fait Loodups bi benn tur la boo xamante ne sama benn sama benn big grand grand bu cool moom ma ko daan woowee you know donc xam nga te mu yàgg maa gëm donc mu nekk tur boo xamante ne dafa ma neex ma jël ko boole ko ci man mu nekk Flouze Lô Debs. carrément bu mu Boom Bap. Mr Boom Bap. yeah Boom Bap. yeah Boom Bap comme beat wala affaire yooyu wala. waaw Boom Bap comme style de musique quoi. parce que euh, ci waaw si biir hip hop. hip hop dafa bëri ay style musical yu si nekk. carrément am na benn style boo xamante ne classique la mi ngi tudd boom bap. donc bu ma nee Mr boom bap donc loolu identité la ci man comme artiste rappeur buy bu bu bu buy développé style musical boobu. carrément ci rap bi. maanaam mën nañ ne jëmm ji boom bap yow la waaw am loolu. léegi sa parcours si rap sa jaar-jaar am na foo foo xam ne ba nga fa tolloo da nga jékki-jékki ne non man rappeur laa léegi loolu mu demee. waaw en fait man sama parcours ci rap mun en 2006 j'ai commencé euh, rap au début quand j'ai commencé c'était juste tout seul ni xam qui ci affaire bi c'était pas trop formel quoi mais demoon ba ben instant bon a def ma am benn groupe ay copains yoo xamante ne ñoo quartier bi ñu nekk ci hip hop bi bon bon ñëwé ñëwee xam bëgg intéressé wu ci affaire bi ma proposé leen pourquoi pas ñëw ñu job gaay gis ni vraiment man tam amna luma yor mën na ci mën na leen apporter dara ñu bokk donc depuis 2006 2007 ma commencé ci hip hop bi. nekk ci ben nekkoon ci ben groupe bu ñuy woowee KG Family. nekk Ziguinchor. donc non la fa demee depuis boobu pratiquement ñu ngi béy suñu waar. nekk ci ay xam ay concours de gauche à droite nekk ci xam di génne ay single di def ay vidéo di wane suñu bopp bopp ba léegi ñu ngi ci game bi quoi. carrément kon loolu yàgg na parce que boo xoolee 2006 ba 2019 presque boo xoolee 13 ans la ah. waaw 13 ans ko def si rap war nga mën a am tuuti bagage quoi. Euh, léegi yow OG rappeur parce que ni mën a déggee ngay wax war nga mën a définir kan mooy OG rappeur kii. ñu ko tegee ñu ne kii OG rap. OG rappeur bon selon man quoi mun naa wax man OG rappeur day doon ki nga xamante ne tey am na xam-xam d'abord parce que xam-xam mooy mën a tax ñu ñu ñu ñu ñu mën a jotali message ci biir rap donc rappeur da war a am xam-xam benn ñaar bi mooy musicalement rappeur dafa war a mën a armé ay ay ay yenn. concept yoo xamante ne c'est obligatoire nga mën ko mooy bind mooy flow mooy skills nooy tegee loolu yëpp tamit OG rappeur daf ko war a mën a dafa war a mën a ànd ak bagage yooyu bagage intellectuel bi ak bagage artistique bi ko ok mhm. yeah léegi xamuñu ñu def dañuy yëngal pour gars yi mën a xam carrément côté sound loo mën a Yeah, yeah, what's up? Fluids lewd Dubs? So a big ass my guy up Casamance where you are. A bépp nigga bu my biggie. It's your boy Fluids lewd Dubs. I Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Fluids lewd Dubs. Uh, good my man, I'm the best. Uh, so check. Ah, i am too dope for the niggas duñu mës a yem The tax sa xol the bëgge fluus gëmal ni du neen master laay on your mic a yaga hard nigga boo doon taw ni Usain Bolt dooma mës a daab mën a kill bit dama tank boy I rim like képp di you play mel ni game boy yaa enjoy flow but dàkk lem boy Cancel fluus but bëggee fàtte yow say plan boy sa life dafa xaat jógal waar xeex am na ku tàmbalee ci dara tabax gratte ciel ci fen ngay dund fexe ba lépp neex ñàkk lépp dund ci dëgg loolu mooy bànneex sama sound diis kenn du ko peese soo amul mind bu yaa mënoo ko encaisser yàgg free def diif kaw biit dara mënuma tiim I am the king sip nga nu mu leere barkeelu freestyle the best sound sa yiw la may njëkk a move balaa yëngal down yenn ladies di jaayu bëgg xaalis bor nga sa yaram ci télé bëgg xaalis tax sa cër di naaw ba may nekk superstar feeñu ma ci TV lu gën nice ci sa life góolu ko sa dream Sa album like kilak sama band ba Dama bëri daaj cu ne ñëwal tekk paan gëm naa ni dama yéeme mel ni alien From PA Casamance represent man proud Always the tale of the kingdom we stay great Yokku walk but chanting the King Kong nigga Fuck any million view YouTube man so many niggas nigga suñuy bëgg nigga man, ngi cool yéemuloo that you rap nga bëgg the fool. you wanna box with me kon di nga you ruuy Yo, I don't care I don't care boo ma on, nigga man my def good rap music nigga flow be dip bi kill, gil katu bit bi bark, barkeelu freestyle what it will it bi back to the roots sama mixtape ba bëggee déglu real rap nigga nanga ko chronomètre lépp man te ma dégg temps ma duma M6 buy naaw nekk dans le vent jéemal yokk pas weesu naa la cent ans maak yow ci sem timbul wari maa lay teg ci ban waxa gooma lenn boo waxul gaar the more you hate me man nigga maa ngi nekk ci taab loo gën a tële ci sa mind dafa easy fii bakkan bu ñam dundu dee mel ni easy e bés bu nekk maa ngi woog mënu loo ma tee est-ce que bu géej di ñëw sa kaw dinga si am pexe puus nigga on the beat dafa yàgg tight barkeelu freestyle ma nigga bi mooy number five yeah what's up Flouze Lou Obelis TV what's up Rapper real nigga. Represent Casamance, Zig and Shaw. I was popping, guys. I see you. DDC, KG family, all my niggas. Manglen the Gis. Guys, I. Guys. Nice, nice, nice, nice. Whoa, bye, lii nag mooy live. xam nga lii moom laa lay wax mu ne ku amul bagage mënoo fi ñëw parce que fii amul tricher dañ lay tegal bit bàyyi la nga ah, loo mën rek ngay wane loo mënul mënoo ko. yaa maa la bëggee bàyyi di la féliciter ci loolu. yaa wës léegi yow euh, lu tax yow nga choisir barkeelu waaw waaw barkeelu parce que fait dama toogoon benn période boo xamante ne toog naa lu yàgg en sama fans yi gars di laaj. bàyyi lu tax génnewatoo affaire yi xam nga ñi ngi xaar parce que single bi depuis benn single bu ma defoon nawet mais toog naa pratiquement benn un an boo xamante ne j'avais plus rien sorti gars demoon ba xaw a kii quoi après bon ma toog rek idée bi ñëw ma ñëw si ñëw ex si ne ma bon pourquoi pas nga jox gars yi dara ñu barkeelu quoi xam nga boobu ba léegi ñu ngi kii mais daf leen ñu barkeelu gain am déet xam nga donc mu amoon benn bit bu dóob bu ma yoroon xam nga paf ci benn guddi boobu noonu ma benn sound bi enregistré ko yu xam nga jox gars yu baax man de maa ciy faju baay mais nag barkeel yi dama la koy fàttali ko am na un ba cinq quoi barkeel yi am na un ba cinq mais dañu gis ne chaque jour barkeelu benn buy génn rek day ànd ak clipam quoi lu tax tamit choix boobu tamit quoi waaw c'est vrai parce que en fait boo xoolee actuellement fu ñu toll ak monde bi lu lu lu gën am impact actuellement moy visuel quoi. par rapport ak un peu business ou musique bi visuel dafa nekk loo xamantene ne moo gën am impact donc il est il est plus facile pour nga am accès ci public masse bi ak vidéo moo tax on on fait tout ba bu ñuy génnee euh, barkeelu freestyle yi ñu def mu accompagner ak vidéo comme ça mu gën a large quoi. gars yi waaw gars yi mën la mën a gis mu la xàmmee. Mm-hmm. Euh, fii rap boo fi ñëwee. dañ lay teg poser la ay question si li nga xamante ne bi yow jot nga wax quoi wala boog instant yi nga koy wax si ban état la fekk moo tax tey ñu bëgg la laaj euh, si barkeelu free barkeelu freestyle ni da nga ne game bi dafa lëmb ay feeg ni sabar bu tas quoi sabar bu tas en général xam ay genre feeg góor jigéen wala ay jigéen lañ fay gis mais pas ay réel nigga waaw parce que benn instant demoon nañ ba boo gisee ma wax loolu demoon nañ ba benn instant xam ràññewatuñu woon ci ci ci game bi ci rap bi ñan ñooy rappeurs yi ak ñan ñooy ñëw pour caaxaan parce que dañ dem ba non si dañ dem ba benn instant dañ dem ba benn instant ku jóg day téye micro mu ñëw mu ne day rap rap waaw te rap dafa am yenn yoo xamante ne lu bëri daf koo laaj parce que tey jii nii loolu ay conséquences ay actes yu yu bëri yu ñu def laisser aller bi dafa dem ba bëri de telle sorte que tey jii nii tout le a pu avoir accès ci ci ci micro bi tëb rek ne man rappeur la donc xam te ñun suñu biir ñun xamante nañ quoi. carrément essayant de comprendre on sait qui est qui donc du genre c'est juste pour dire au aux aux aux fake aux pseudo ñi nga xamante ne. ils maîtrisent la chose dem leen ngeen toog li ñuy lii lii ñuy woowee hip hop dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko war a def. dafa am ñoom ne dafa nekk si ñoom quoi. ñoom ñoo teewal si def lu lu yi wax dañu naan tànn ceeb quoi ñu jaay tànn kenn par kenn ci ñoom xam nga seet leen ne. ta non c'est que c'est yi booy wax da ngay wax. ak ñëpp ngay waxal. ok donc ki xam nga qui se sent mordre se mouche comme ni ñu koy waxee. parce que boo boo waxee gars yi nga xamante gars dofu ñu ko xamante nañ seen biir ñi war a teg maay kii xam nañ ñoom xam nañ seen bopp ni dañu war a teg maay carrément waruñuy sonal ko donc ci se sent morveux se mouche carrément moo tax nga ne flouze game bi lay leeral quoi lay ñëw leeral waaw for parce que game bi dafa demoon ba benn instant comme loolu dafa am ku dugg ci biir kii bi foog ne yow M69 foog ne yow da nga mën nga rap foog ne parce que Sénégal dañ dem ba benn instant loolu xam nga lan lañ jàppee affaire yi. Hmm. pour ñoom boo mënee tegalee ay rime rek yow rappeur nga. si <laughs> yaa ngi xam nga boo riimee benn ñaan ñett rek ñu ne waaj. mais du loolu mooy rappeur. rappeur dafa am un ensemble comme ni nga ko waxee sànq. voilà dafa am un ensemble donc loolu moo waral tey jii nii il faut game bi mu am ñoo xamante ne dañu am taxawaayu leeral game bi taxawaayu won public bi carrément lan mooy rap ak lu nekkul. rap rap ok mais tamit noonu ngeen amee tamit sañ-sañ tamit wane ne diw ak diw bokkuñu ci diw réel la diw mii du ci dara non loolu c'est facile parce que boo xoolee réel yi tey ñooy ànd seen biir mooy lu ñuy naan réel recognize réel réel yi ñooy ànd seen biir ñooy ñooy ñooy featuring seen biir ñooy def seen i business seen i biir mais tey jii nii am na ñoo xamante ne tey man bokk man mënuma leen boole samay business parce que dañuy yàq carrément mënuñu quoi dañuy forcer. mais am na ñu ñu wax naan mënuñu mais boo demee YouTube da ngay gis ñu am ay temps de vue yoo xamante ne bii. par exemple gars yi woote seen bopp réel duñ ko am te buñ defee concert tamit yenn saa yi day fees ah. mais mais c'est que YouTube nekkul loo xamante ne mun nga si peese maanaam lu baax quoi c'est pas une c'est pas du forcer que nga mun a peese YouTube lu baax mun nga gis lu baax lu nekk YouTube mu am cinq vues. alors que loo xamante ne c'est vulgaire c'est ma naka bon na def na lu nekk am un milliard de vues. c'est comprendre donc loolu du critère. bu kii si man quoi. rappeur dafay dëggu pare ba pare correct. yeah for real. rap dafa war a dëggu ba pare correct. waaw dëgg la loolu maa ko. rap bu correct rap bu correct. dafa war a correct ci naka ci naka parce que tey jii. wala ci si si si engagement thème wala si lan la quoi. ci lépp. ci lépp correct parce que tey jii nii ñun mënuñu permettre tey euh, rab bi euh, ligne bu mu nekk di jël nii tey jii nii Sénégal dafa nekk loo xamante ne gënalul rab euh, rappeurs yi quoi. parce que dem nañ ba toll foo xamante ne tey li nga xam ne cause yu ñu naan défendre démb ak barki démb ba mu joxoon doole rab bi ba mu joxoon respe hip bi ci biir société bi dañ ko nekk di dévier. démb boo nee rappeur tey jii nii dañ la dañ la naan respe

carrément euh, ñu saay fa ni nga bëgg perpétuer mel ne dafa am benn gain bu ne sa kanam <laughs> xam nga li nga ne kii nii daal dafa dafa mel ni dafa bëgg day natt sama bopp man moom wala affaire yooyu noonu la loolu la wala du loolu. waaw waaw waaw loolu la parce que xam na booy ego trip moom da demee si ay aal yu métti quoi. da demee ci ay aal yu métti <laughs> ah, noonu la de. xam nga boo ba ne instant loolu la quoi dafay mel ni niga bàyyi nii sa kanam te niga boobu noonu mooy niga yëpp. carrément mooy niga yëpp quoi. moom moo tax nga ne you wanna box with me. kon di nga lekk ruy. kon di nga lekk ruy. carrément mais boobu man si man pour man dafa am benn niga boo xam ne dafa nekk sa sa imagination kon tey jii nii waa jii nii kooku am na ku la war a pousser tam nga bind wax boobu wala. parce que sometimes en fait sound des fois boo koy bind.

pour ngeen freestyle duñ ko nangu. waaye nag surtout bu fekkee ne moom bokk leen yéen ñaar idéologie sens su rab bi ngeen di jëm. yeah why not ça dépend rek ça dépend ci ci ci ay ci ay ay ay ligne quoi ça dépend si ah. ay euh, naka la ñuy gisee débat boobu ak naka la ñuy gisee freestyle yi. si fekkee ça rejoint mes convictions ma partager ak nit dara. amul problème si ça rejoint pas mes convictions aussi. na na dem ma dem quoi du ma toog xam nga. carrément that's right euh, si barkeelu freestyle 5 bi euh, yaa ngi naan ñàkk lépp dund ci dëgg. loolooy bànneex eh. maanaam nga dem ba ñàkk lépp nga nekk ci dëgg ba tey yaa ngi ci dëgg quoi. nga ne loolu mooy bànneex loolu nu mu mën nekkee parce que boo demee ba ñàkk tamit instant bi ñàkk neexul. bànneex bi bànneex bi nekkul ci am. bànneex bu may wax noonu. nekkul ci am quoi gis nga gis nga bànneex dëgg mooy bànneexu doylu li nga li nga am ak li nga doon loolu mooy vrai bànneex doylu li nga am ak li nga doon nekkul am àdduna bi ak lu ci nekk ba pare tu n'es pas heureux mais tu peux être quelqu'un koo xamante ne tu vis dans ta baraque sa benn mer gàddu ngay sànni mais foo génnee yaa ngi sant yàlla sa xol mi ngi feex fu la nit gis yaa ngi siiñ est est-ce que duñu barkeeluwaat. yeah for real. <laughs> sound wow, neex na de. <laughs> waaw waaw non mais. <coughs> nañ barkeelu gaayam. yeah. lose TV. Fluence Lou Dubs. okay. yeah. oh. yo. oh my beat, bit Hello, boom bap begun. the best niggas in the ground teg flow The bën du benn nigga tey ngay dégg gens My old night flues nigga nigga flues nigga nigga for life let me back to basics Mr Boom Bap the Karola A6 from 86 tag with ci bit pill I got the best flow Come may gensu di get chill niggas yi jàkk di teel a But bu rab bi naree yomb nañu bàyyi te jay cox Boom bap, rollen die bun, brandetje bitty. Rap the end the revolution, could be fitty, maas labai. like nach me nabai. Yo gana tego lu my rap, nigga my sabai. Man, dan ma big biggie tabitje, pack toe. Jigga Kimbo Price, yo kuma flow full. Uh, ah, hip hop be man la like. I give a young niggas man hate for life, man. Do my rap di foow yow da ngay foowee rap niggas yokk ci respect baby. please boo dee rap don't like, could ku could rap man yow laaj laaj let jaawale te grand I come, i am a daaj nigga bàyyi ma the big bang rapport in na face sound sama yo, nigga ya drive me to the boom bag but you don't have wait my flow bu fekkas put the gun head man tag copy my style ba du i am a legend alive niggas be mine Pay tuuru uh. For a long time, New Jungle kept it in both mind. The fools bang, they rocked up, we gon' shine hands up. My flow tech claps at ace up. Rhyme should je boom bap, get the bass up. My noem Jelly, live took New York ready. But they fuck rap, in I'm je cut curry mean. Microphone, the rap look clean, gonna need the So Solution show with 16, uh, candle my body. On the beat, rap look at it. ghost ride, my punchline, puggela are. Buddy tare, je gal hand you neck and dare. My party body, uh, be what a dolly, oh my god, little all a god maa ngi up yaa ngi down maa ngi on the top nigga. Bye, bye, bye, wuu tey amati naa gan baay yéen yéen a koy gisal seen bopp xam nga lii nag moom amul fenn nak du ma ko nëbb <laughs> fii rek laa rap audit laa ma am feneen maa ngi jégalu gars yi xam nga eh, technicien yu nice lañ am bu ñuy invité invité yu nice la ñuy am te ñun li ñuy def nice par force yéen baay ñu ngi bëggee gars yi euh, dañuy ñëw ci côté projet projet yi nga yi nga instant yi nga sumb nii di ko dans le futur nga war koo réaliser quoi yooyu projet yan projet la. voilà donc actuellement mun naa ne projet bi gën a euh, jege buy waaj a génn mooy def benn mixtape boo xamante ne yàgg naa ko job en fait ça fait ça fait des années quoi mixtape boobu noonu. waaw yàgg naa ko job. mais un peu ay quelques soucis mo taxone ñuy repousser di repousser mais actuellement euh yalla def na lu dess mom beuretul quoi. ok lu dess beuretul inshallah allah mois. bon fii lekk quelques mois rek. quelques mois quelques mois yàggatul quoi. ok ñun nag bëgg nañ mu ñëw fekk ay un mois wala deux mois da ci ba parce que tamit. <laughs> waaw Bakel Freestyle 5 bi mom ñu ngi koy déglu di ko waat bëgg nañ ñeneen ñeneen dolé ko quoi. Uh-huh. euh kii bi mixtape bi nu muy tudd. en fait mixtape bi mi ngi tudd back to the roots. back to the roots. mooy dellu ala la source. ok euh, lu tax loolu quoi lu tax ñu war a dem back to the roots instant yii nii ça va wala ça ne va pas moo tax ñu war a dellu. loolu yow sax xam nga ci dara <laughs> xam nga ni instant yii nii ça ne va pas ça va pas donc tey jii nii kuy artiste tey jii nii normalement yow war nga war nga mun a plaider pour cause back to the roots. artistes tey sénégalais quoi parce que tey jii nii suñu boo defee un peu analyse société sénégalaise bi fu mu toll tey jii nii y a beaucoup yoo xamante ne on est en train de partir à travers quoi. ñu ngi ñi ngi teggi raayu yoo xamante ne démb suñuy suñuy maam bu ñu leen yeewoon ñu ñu ñëw tey gis Sénégal lu fi am dañ la naan noonu fii du Sénégal. fii beneen dëkk la ndax li ñuy gis nii xale yi di ko def ak mag yi di ko def. wax dëgg yàlla ñun démb joomoon nañ ko def. donc tey am na lenn loo xamante ne on doit par laisser faire que mu disparaître fii y a trop de choses trop de valeur trop de de choses importantes que nos nos grands-parents xam nga duñ fi il faut ñu delloo booy ci loolu. ok sàmm ko quoi. ñu sàmm ko quoi. bokk na si sàmm ko sax mooy sunu làkk bi nga xam ne ñoo ko moomal sunu bokk mhm. pour man mii ma wax ñaari baat yoo xam ne teguma ci mot français wala anglais day jafe. jamono juñ toll nii def nañ élection ba élection yu weesu na. seen politique bi nan nga ko gisee quoi. donc déjà euh, politique bi man li ma ci wax mooy Sénégal gis nañ ni que am na euh, une nouvelle bouffée d'air en terme de politique bu fi am. ay têtes yu bees yu yu génn ci politique bi. gis nañ fi tamit yeneen nit yoo xamante ne yàgg nañ fi nekk mais li ma am pour wax rek mooy. tey jii nii euh, politique Sénégal bi ak lu mu munti demee il faut que ñu ñu bàyyi xel askan bi koi c'est ça le plus important il faut pas que ñu tey jii nii ñu fal la nga ñëw toog liggéeyoo ba pare suba nga bëgg euh, am looy looy looy looy looy wax askanu Sénégal parce que tey jii nii gars yi ils t'ont donné tous les moyens jox nañ la lépp. donc li ñuy laaj rek mooy nga nga liggéeyal leen. ci jamono gars dañu wax ne non rappeur warul mën a am position ci biir si biir rappeur si biir seen politique bi quoi ñu ne kii laa far parce que kii boo faree moom mu xëy trahir nation bi après yow loo mënti waxati tamit dañ naan non yow mosoon nga far quoi. no c'est que ñàkk far moo bon nit ñàkk far moo bon man ko faral Macky Sall respecté naa ko. ku faral Idi respecté naa euh, ko ku faral keneen respecté naa mais lu bon moyen, yow nga bañ am position surtout lu toll ni euh, réew. Rapport Sénégal avant tout c'est un citoyen sénégalais donc lu société am dox lu dëkkam di dox je pense que tu ne dois pas avoir ta langue dans ta poche au moins yow porteur de voix au moins si am nga ay opinion yoo xamante ne tey war nga ko partager donc tu ne dois pas te taire parce que politique ça engage tous les Sénégalais. ok donc tey dit nii man sama gis-gis laay wax man en tant qu'artiste... artiste politique bi su ma ci waree wax dama ci wax su ma ci warul wax je préfère rester dans mon coin. si tout va bien on va pas mais si tout va mal mon frère dañuy wax il faut nous joxe suñu position parce que nous bàyyi ba gaal gi këpp ñu door a di naan fii ah pourtant lii ak lii mais démb waxoo il faut ñu wax. ñu jël suñu position quoi. ok ok tey Flooz lu def su ma fi nekkoon mën na rap mën na wax bu waxee nga d'accord bu rabee tamit nga d'accord moo tax tey jii am naa mbégte teewal dalal ko fii nii xam nga di ko jaajëfal bu baax di leen jox di daje beneen yoon di leen wax ne ngeen abonné si chaîne bi di leen bëggee waaye mais nag maa ngi bëggee gars yi jaajëf. What's up man? Flooz Lou Dubs, Back to the roots, some mixtape mi ngi ñëw année bi yàggatul na ko wait yeah check oh yo yeah yeah oh yeah oh Ayo, yo, nigga nigga here for dinner bit. Y'all got sick my whole life on the tongue. There was one in the pits. I'm the best MC, pen in the green zone. When I spit in my rhymes, y'all travel to London. Nigga so powerful, Gamula man. I'm with your friend next. can be doing with your friend. The nigga, that van fight, but fight. that a neck cool. That could be neck cool, but nigga pull my neck, ik get too. Your fools, nigga, that for crazy je mind. Yo, dan ga sochla therapie, toch al vat you, je fan. Tag your line, booming the bab never behind the fools. I got the best flow, waiting my time, so hold sound and unfold. That with your tempo, back to the roots anytime you send crow. Yeah, nigga, anytime they got the soul, My fools, nigga, only mic, with my show and proof. Dolan soul, hip hop with the good morning mood. My luma monte rock tech, nigga, Dolan soul, never. Bitches, your buddy, my nigga, no more. Flow di tàkk seel na pôle nord ngay wëri di kàcc yow ak sa gàngoor ni ngi sippi ëppale nga am ñooy xëy di the classic rap bi moom ma bëgg yàgg di fëgg basic track nga jox ma gëdd yàgg bëgg real hip hop dellu ci dëgg fools nigga from a bàkk ci get old, ma sa second never <laughs> that's what's up man Rapper dick nigga Nice, nice, nice, nice, nice.